wax dafa jur te yiw lay jur waaw moo tax ñi nga xam ni ñoo wo li ñoo tuddee culture psychique ñoom docteur Pochet ca la bokk ñoom docteur Carrel ñële ci la ñu bokk ñoom dañu am lu ñu daan wax